waaye tey de li fi aw njàqare ak tiis ci ki ñu yaakaaroon muy sunu kilifa mu jóge ci moom muy lu ñu bett Alioune Ndoye monsieur le maire parce que yaakaar naa si njabootam lañ bokk mu ñu mu mu daan ñu yiir daan ñu jàppale tey ji bi liy amee feebar bi ñun ñëpp ñu ay citoyen sénégalais ñu ñëw am lu ñu naqari feebar bi ñun ñëpp la metti ñu bañ ko ba ñun sunu biir amuñu dara ñëpp xam nañ ne dañuy lakkale fan yii yëpp am ay problème la am as dañ ci yëkkati un million yóbbu ministère de la santé pour participer ci développement réew mi réew mi lu ci dal ñun dañ cee war a bokk ndax ñun dañ ñoo xeeb waaye mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk bi lii amee loolu amee ñu yëkkati tamit ay détergent jënd ko sunu xaalis valeur bu am solo valeur de trois cent mi yóbbu ko maire yi jàppalee ko suñu maire parce que combat bu mu nekk ñun dañ ciy nekk waxtaan seek moom bi ñu waxtaanee loolu jël suñu décision kat maire waxtaan ak ñun ñu ni ko dañuy comme mu ni ñu comme noonu la su ma sañoon ngeen tëj marché bi ñu ni ko loolu ñun xam nañ li ko war a kon dañuy ñun ñooy jiitu tëjal suñu bopp marché bi ngeen nettoyé marché Petersen n'est-ce pas tëj marché nag yaakaar nañ ne déguerpissement bokku si ñu tëj suñu marché wax ak waxtaan ak dem maire yi waxtaan fa ak ñoom ñu waxtaan d'accord jàpp jour bu ñu war a tëj marché bi no dimanche àgguñu si loolu c'était lundi mardi lañ tëj bu ñu wàccee 19 heures le mercredi ci ci guddi ci lañ yëg ni am na benn côté boo xamante ni waa agent maire yi ñëwoon nañ fi doon ko daaj yi mais dañ fi fekk ay bagages ñu ñëw wax ñu ñu ni leen kat en ce moment là nañ ñu ni nañ dindi bagage ñu ne leen mënuñu ko dindi parce que ni ñëpp dem nañ si àll bi marchand ambulant yi si ëpp bi dañuy dem fi la ñuy wootee Dakar Plateau mais dañuy dem si àll bi fa lañ ñibbi kenn xam na ne amul moyen pour ñëw pour le moment ni ñu ne ah il faut ngeen récupérer seen bagage su ngeen ko deful dinañ ñëw deuxième jour deuxième jour fi lañ fanaan ñu ñëw fekk ñu fi il était là bi ñu taxaw ñoom ñu ñëw taxaw ñun leen suñu bagage kat kenn du ko mën a jël dañ foo ngeen bàyyi ba booy ñëw ñu jël ko yaakaar nañ feebar jotewul ak déguerpissement dara lu ngeen di def nag bu dee raxas ma ngeen ko def ñu ne noonu démb lañ ñëw indi ñu force de l'ordre bu ñu xamul jël suñuy bagage yàq nañ lépp ñoo ngi nii toog toog li ñu bëgg mooy président gesuñu xam ne ñun ay doomi réew mi lañ ay ndaw yiy joué si contribution ci réew mi lañu ñu nga xam développement réew mi dañ ci joué nga xam ne benn affaire Petersen table bi gën a ndaw ñaata borom kër la yor benn si sama table li muy ndaw ndaw cinquante centimètres la mais yor na cinq borom kër yu nga xamante ne ñoom ñëpp dañuy xëy jël si rangu dem liggéey après ñu yónnee seen dépense tey ñoom bi ñu arrêté loo ñu toog rek dañu war a jox mesure d'accompagnement lu ñu di lu ñu dundee ñoom joxuñu ñu ko en plus ñu ñëw xañ ñu lañ doon dundee as loolu ndax neex na dañuy wax ñu ngi remercier ñëpp même nañu président dimbali gestuñu xool ni si si si réew mi la ñu bokk.